fii si sa commune yow yaa yore dëkk bi yaa yore ay caabeem boo ñu fi daloon tey dana jafe ñu taxaw fi mais ku la xam aussi xam la si engagement communautaire noonu laa la xamee ay kuréel kuréel la ñu bokk mais ku la xam aussi xam la si taxaw si mbiru askan bi dañoo ñëw fi tey ànd ak équipe bu professeur Niang professeur mi ngi sa gannaaw kenn gisu ko mais mooy tirer les bon baan naa doole ji moom moo ko yore moom ñoom ndaag parce que wolof dafa wax ne li yëngu li ko yëngal ak ëpp doole bon nag professeur maa ngi lay remercier bu baax di jaale ñetti yoon sama sœur danaa yegg si ba foofu jaale la si les frères yi fi jóge ak si bàjjanu gox ba sa Sédhiou jóge fa nekk si aussi si sa association parce que ku jóge si ñun rek ñu yëg ko genn golo gudd na mais luñ si laal rek borom yëg ko bon ñu ngi lay jaale bu baax may euh, féliciter bu baax Astan l'honorable Astan ma koy féliciter parce que taxawaayam fii dafa am lu mu joxe comme taar parce que boo représenter gox représenter véritablement askan lu mel ni bu amee rek ñëwal taxaw bon maa ngi koy remercier bu baax baax a baax baax di nuyu sama ndijaay dëkk fii si gox bi koo xamante ne bu ma amee dix-huit ans ñu jox ma ne ma demal France jox ma bourse ne ma demal jàngi ma yor sama cartable ba ma ñëwee moo ma daral tàggat ma ba ma xam fi ma jëm fan la donc tonton Mody maa ngi lay remercier bu baax très honoré et très di kontaan si tey li ma ñëw teew fii ànd ak sama équipe yëpp madame la directrice générale la santé mi ngi nii taxaw docteur Doucouré nga xamante ne moo yor lépp lu jëm si feebar yi ak nu leen di xeexee taxawul directeur u SNEPS e taxaw na Koulim Dioum acteurs yëpp taxaw nañ bien entendu il se fait toujours discret monsieur le directeur de cabinet Alphonse Thiaw mu ngi taxaw aussi bon li may wax mooy que ne conseil des ministres laa jógee lébu day wax ne teluma fenn fi laa jubal si lébu bu ne teluma fenn mooy jàdduma fenn naa ne mais loolu mooy la loolu dafa am solo lool conseil des ministres laa jógee tellu ma fenn ba fii bon nag lii amal na ma solo lool neuf mille neuf cent soixante et un yaakaar na deux cent décès mais loolu li ma siy jàngat mooy si neuf mille neuf cent et quelques yi sept mille sept cent yi mi ngi biir Ndakaaru sept mille sept cent yi mi ngi biir ndakaaru bon nag fukk yoo jël rek juróom-ñett yi mi ngi fii bon nag mbir mi buy song ñun ñii lay jën a song bon nag waa Dakar dañ si am une responsabilité très très importante te district centre mooy ñaareelu district bi mbir mi nekk passé district ouest nga xamante ne fa laa dëkk bon nag Jean maag yow. am nañu liggéey am nañu liggéey. mbir bi nag seet nañ ko fu nekk fu nekk di ko jéem a jàpp muy nëbbatu di dugg si suuf lal yi di dem si garab yi fu nekk jaar na fa léegi jël leen yéen pour ngeen jël torche lamp torche xool fu mu nekk pour génne ko. ba yéen liggéey bi ngeen am liggéeyu fourmi la da am liggéey boo xam ne da war a dugg si kër yi wax ak nit ñi pour ñu xam ne mbir mi mu ngi seen loxo bon nag beneen arme la ñu utiliser arme bi ñu utiliser nag mooy arme bi xamante ne moom la corona gën a ragal bon ñu ngi leen di wax ngeen taxaw bu baax xam ne on compte beaucoup sur la ronde des jeunes fii bi ñu waxee léegi def seen slogan mais c'était merveilleux bon nag responsabilité boobu gëm naa ne bu ngeen ko assumer rek communauté bi yëpp jàppal leen si may vraiment remercier les les bàjjanu gox di remercier Baytir et son équipe parce que nag yaakaar naa ne ñu ngi door activer le vrais leviers du combat communautaire. te gëm naa ne danañ si gis résultat bu dul yàgg. ñu ngi jëm nag si tabaski ñu ngi jëm si tabaski tabaski am na solo lool. mais dafa fekk contexte wu bas li ñuy wax pandémie ah julli àjjuma lay farata la am solo lool ku nañu xool nan la ñuy fexe ba bañ a julli àjjuma ah wax dëgg yàlla nag tabaski bu ñëwee bu naree faagaagal ñu ne nit ñi bu ngeen mënul dem jàkk ja mais fexe leen ba fa ngeen toog ngeen toog fu tabaski parce dafa am lu ñuy wax responsabilité nit ki day assumer ay responsabilité maslaa bu ëpp itam des fois day indi problème te réew mi toll na foo xamante ne maslaa dañ ko war a wàññi parce que feebar bi moo toll foo xamante ne ku ko maslaawe rek xamuloo ko bon nag langage de vérité boobu kilifa yi ak ñi yor ay responsable day ray ndomb ñu ngi leen di ñaan ni wax ko population yi parce que population yi si ñun la ñuy xool kon nag li ma waxoon laay waxaat ku demagul boo mënee toog fii te def fi tabaski maa ngi ñaan nga def ko parce que xamuñ ndax yor nga jàngoro am yoroo ko boo ko yoree yóbbu ko foofa ndax amu fa woon mais indil ñu beneen problème bu gën a metti wax ji yépp loolu loolu message la na journaliste ma dégg naan waaye Diouf Sarr moom Dakar la dëkk day uuf njabootam ay xaram lakk ay faaram ba pare naan ñoom ñun ñu dof fi loolu yëpp si waxu journaliste la mais ñun li ñuy wax boroom xam-xam yi dañuy déglu ba comprendre ñoom lan lañ bëgg ñun ñu traduire ko si ay message bon nag dispersion wu feebar bi bu amee tey si réew mi rek ñu koy dégg fu ñu ko daawul dégg rek boobu moytul ñu dem tabaski ji ñoo ko fa yóbbu beneen bi mooy mag ñi génnuñ seen kër dañu toog ci seen néeg néeg bi sax des fois day ruxu bu baax si biir kër gi ba kenn du fay mën a yegg mais boo ko fa corona fekkee nag dafa am ku ko fa yóbbu ko ko loolu tam c'est important parce que souvent néegu mag yi boo fa yegg dina am traversé ci biir kër gi bu fekkee corona nag dafa daagu ba foofu yegg si ci mag boobu mais wax dëgg yàlla war nañ xool la responsabilité ñi ko fa yóbbu ko fa yóbbu mooy ki ami tànk mën a dégg na kër gi dem ak ñëw souvent c'est la jeunesse la responsabilité de la jeunesse tam il est important que ñu wax leen ñu jàppale ñu bu baax ci xeex bi ba gëm réew foo xamante ne bu fa tolloo sa jeunesse mooy jëw taxaw ne stop corona moo tax bu ma gisee les jeunes surtout les jeunes filles les jeunes garçons ñu bokk nekk dans la dynamique communautaire dama naan am naa yaakaar bu baax a baax ci résultat yi ñuy xaar ci mission mbir mi nag masque la ak romb raxasu yegg si raxasu romb raxasu am na ko wax sànq defe naa yaa ko wax mais dama si del dolli yegg ci raxasu boo demee ba ñëw raxasu mais sol sa masque bu ñu nee masque bi duñ tàggook moom pendant vingt et un jours ku nekk jël engagement ne doo tàggook sa masque mukk ah yaakaar naa ne corona moom li fii des du bëri bon nag ñi ngi ñaan sénégalaises ak sénégalais bu nekk nga jël engagement devant la nation pour aar sa réew ne ñaar fukki fan ak benn doo tàggoog sa masque benn yoon loolu maa ngi koy ñaan sénégalais yépp ak sénégalaises yépp ñu jël engagement boobu parce que engagement boobu day aar réew mi bi may mujj nag mooy xew yi mais nañ ko arrêté buñ si dellu soit mais xew yi dañ ko tere rassemblement yeeg yooyu mais dañ ko tere warul ñëwaat dañ ko war a arrêté parce que foofu la mbir yi di jaar di gën a sonal réew mi bu ma gisee ñu nar a tegaat ay bâche na a tegaat ay kii defaat ay yendu et cetera et cetera dama naan waa mais ñii xanaa xamuñ li xew si dëkk bi bon dëkk nañu arrêté waat bu baax a baax xew yi maa ngi gis sama xarit yore bongo yu rek ñu may gii mais gars yi nañu arrêté xew yi bu baax parce que gëm naa ne yéen itam da ngeen bëgg dëkk bi jëm kanam kontaan naa bu baax seen taxawaay parce que dégg naa seen message bi ma leen rombee léegi merci beaucoup et bon yaakaar naa ne wax naa de manière globale samay message mais damay terminer rek ci équipe bi professeur maa ngi lancé officiellement officiellement maa ngi lancé effectivement la grande marche vers la disparition de la Covid fii ci département de Dakar ñu commencé fii ci district centre mais gëm naa ne la même chose mooy am si district gu département Dakar yëpp mais au-delà des districts du département de Dakar mooy am si région bi yëpp mais aussi mooy am partout dans le Sénégal may féliciter bu baax di remercier docteur Ndeye Maguette da koy féliciter parce que quand même engagement dafa am solo te c'est une dame remarquable engagé qui se bat région moo gën a métti si région yi parce que mooy région bi ëpp démographie mooy région bi ëpp ay mouvement de population c'est tout à fait logique et cohérent mu nekk région bi xamante ne fa la mbir yi donc di sédimentaire maa ngi leen di remercier bu baax a baax je vais donc euh,